profiter de cette tribune-là pour saluer et rendre hommage au général Moussa Fall tey ji affaire Rwanda lañ doon wax Rwanda ñu ngi def seen trentenaire kiñ ki gën a ki ñu célèbre Rwanda aujourd'hui mooy capitaine Mbaye Diagne. le capitaine sénégalais capitaine sénégalais. qui a aujourd'hui une médaille de l'ONU en son nom que Macky Sall tuddee que affaire bi nekkoon boo di marché du port mémorial Mbaye Diagne. Mm-hmm. donc damay wax depuis presque bi ñu indépendance ba léegi Mbaye Diagne ak Moussa Fall. on été nos plus grands officiers pourquoi Moussa Fall est un grand officier est un grand général comme Napoléon sur le pont d'Arcole il a tenu le drapeau de la République contre vents et marées li exception sénégalaise Sénégal mooy à part il Maurice ak peut-être Botswana Sénégal rek mooy dëkk bi nekk ci Afrique masul am rupture anticonstitutionnelle masul am coup d'état masul am révolution masul am nguur gu daanu à la suite des émeutes am na Sénégal période bu ñu tolloon. 2021 ak léegi 2021 ak léegi bu Moussa Fall taxawul taxawaay bi mu taxawoon état bi day daanu te bu état bi dañuy mel ni comme ñëpp bu bi daanu woon dañuy am un président de transition naan dañuy dañuy créer ay CENI Sénégal bien pressé bi mu gën a am. ñëpp di ko nawee ci àdduna bi le seul pays africain wala l'un des rares pays africains bi mosul am coup d'état wasul am changement de constitution kon dañuy daan ci loolu donc boo gisee ku mel noonu nag mu sauver la république par par son sens de l'honneur Sénégal amel na ko njukkal maintenant la grandeur de Moussa Fall mooy lan nit ñi dañuy confondre démocratie ak république l'armée la gendarmerie c'est la république allégeance aux institutions allégeance à l'État la grandeur de Moussa Fall mooy lan démocratie benn en, en général benn fan les durer il a sauvé la république de l'insurrection et l'insurrection a été vaincue les partisans de l'insurrection ont été mis en prison et l'ordre a été rétabli C'est parce que l'insurrection a été vaincue, l'ordre rétabli que la démocratie est revenue. C'est parce que la démocratie est revenue, président Macky Sall par magnanimité voté amnistie que Sonko ak Diomaye génn dem élection gagné. Maintenant le 24 mars loolu mooy démocratie ñu ni Sénégalais yi kan ngeen bëgg mu jiite réew mi ñu ni Diomaye mooy jiite réew mi. biñ ne Diomaye moo jiite réew mi Diomaye nekk président de la République tous les Sénégalais à commencer par l'armée la gendarmerie tout le monde lui doit lui doit lui prêter allégeance la grandeur de Moussa Fall c'est d'aller prêter allégeance c'est pas preuve de faiblesse c'est pas preuve de c'est d'aller d'aller 4 avril d'aller prêter allégeance au chef de l'armée et c'est ça sa grandeur et le peu que je connais de la formation et du sens de l'honneur de nos il a prêté allégeance parce que c'est son devoir d'officier de le faire mais il faut pas que les Sénégalais oublient les services que Moussa a rendu à la République si la République est encore debout si l'État est encore solide c'est parce que lui y a grandement contribué maintenant la démocratie est revenue président Bassirou Diomaye Faye est devenu le chef de l'armée lui il est parti par parti allégeance c'est ça c'est comme ça que fonctionne l'État bi ma nekk palais dama doon wax ñi ma bokkaloon sama couloir ñoom Serigne Gueye Diop ak les autres man leen ñun nous avons des CDD parce que nous sommes le régime les autres là les hauts fonctionnaires ont des CDI donc l'État fonctionne comme ça cet équilibre là entre les CDD les gens qui viennent avec Macky Sall et qui partent avec lui qui sont partis avec lui ak gens que Macky a trouvé sur place et qu'il va laisser sur place donc l'armée la gendarmerie les magistrats les hauts fonctionnaires ça c'est l'État ce que dans l'opposition les gens disent le système le système c'est ça le C'est cet état-là qui permet au pays de c'est cet état-là qui permet au pays de fonctionner. C'est parce que nous avons cet état-là que nous avons pu lutter contre la sécession de notre pays dans le sud. C'est parce que nous avons cet état-là que l'insurrection a été vaincue. C'est parce que nous avons cet état-là que la démocratie est redevenue et que Mais... n'est pas aux élections et que les autres